bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin nabiyina muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahaabatihi ajmain lii moo di xasiideg Sëriñ mu tënke wa wassayna linsaana bi waalidayhi muy xasiida goo ne sëriñ bi daf ci ñaanal yaari waajuram ak doonte léeg-léeg mu laafaale ci jullit ñépp saa boroom subhaanahu wa taala ci alquran dafa soññi jullit ñi ay yoon ci ñuy wormaal seeni waajur ñu di leen wekk di leen waggar waaye di leen liggéeyal di leen teral di leen yëkkati ak donte waajur yi sax bokkuñu pas-pas bokkuñu ngëm-ngëm du tee waris ne leen a jox cër lu dul ne waajur li muy baax baax ak li saa di ci santaane jullit ñi ñu wormaal leen lépp du tax nag kenn sëñ leen a topp ci loo xam ne ak mooy yàlla da caa nekk loolu moom dee su ko def moo tax mu ne bu fekkee dañ la digal loo xam ne seen àq nekku ca kookee day du yey nga topp leen rawante nag buñ la digalee ak mooy yàlla wala ayaasu billah jigéen ji muru say waajur ne la murikul uhuh, kooku doo leen ci topp wala ngay julli ñu ne la bul julli xale du julli déedéet wala yu mel noonu saa borom subhaanahu wa bu tuddee boppam ci alquran ne nañ ko jox wàcc waayam da cee teg waajur da cee teg waajur bu ne wa qada rabbuka allaa taabudu illaa iyaah wa bil wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni gis nga ko fu mu ne jox leen yàlla ciram ak àqam te mooy kennal ko jaamu ko wéetal ko bañ koo booleeg dara lam cee teg mooy bu leen fàttee xormaal seeni waajur kon waajur lu rëy la ki yàlla yónni woon ci ñun nee na eh, laaj nañ ko ne ko waaw lan la yàlla gën a bëgg jën jëf la yàlla gën a bëgg muy lim boole ca wormaal ay waajur ñu laaj ko ne ko yan bakkaar mooy bakkaar yi gën a bon yan bàkkaar mooy bàkkaar yi gën a bon mu tudd bokkaale yàlla teg ca koo xam ne day ñaawal ay yaari ay waajuram da dul ànd ak ñoom ànd bu rafet doo dog cee teg seede lu dul dëgg wax ko ba muy ñetti yoon kon lu rëy la moom ñaari waajur mu am àq ju rëy joo xam ne day dox diggante nit ki ak ay waajuram te àq jooju nit ko mënu koo matale moo tax di leen ñaanal nag dana tax ak jooj yi incha allah man laa wàcc sëriñ bi nag def xasida goo xam ne xasida goo xam ne gu ñuy mën a ñaanale suñuy waajur bokk na li gën a yéeme ci xasida gi mooy amul euh, xàjjatle diggante ñaari waajuree bu fekkee ñu ngay dund wala dañoo faatu moom xasida gi boo ko jàngee yaa ngi ñaanal sa ñaari waajur jamtal na ñu dund jamtal na ñu faatu wala kenn ki dund kenn ki faatu lu ci mën a doon rek boo jàngi xasida gi wax ji dana ci jub ñaan gi dana ci jub nangu na sa waajur di dund nangu na sa waajur di ñu faatu ñaar yëpp nangu na ko bokk na ci liñ ci mën a jàngate tamit mooy ndekete nit bu faatoo dees ko war a ñaanal sëñ Tuubaa mi ngi nii ñëpp xam nañ ak njubam ak mbaaxam waaye ñëpp xam nañ yaari waajuram ni ñu tedde ak daraja ji ñu am waaye teewul de mi ngi nii di leen ñaanal lu muy wax yàlla yàlla na leen jéggal yàlla na leen yërëm yàlla na leen musal ci mbugalu bàmmeel kon mbir yi nekkul lu oyof bu fekkoon oyof na kon dañ ñaan sëñ Tuubaa kon jërul jërut muy ñaan ay ñaari waajuram moom mën na leen yóbbaale rek wala moom kat maam jaara moom ku baaxoon la jaamu yàlla bañ tudde ko dëkkaale yàlla xanaa kon jërta ñaanal axa kay sëñ baa ngi nii fii di ko ñaanal kon loolu day wane mbir mi mbir yi nekku rek ne dañuy oyofal ku faatu rek ñu ne moom baax na nangam déedéet ñaan kay ñaan kon xasida gi fii la tàmbalee ñu ngi ci ànd ak seen mbokk Alioune Badara Ndiaye ab tuuba wiyu di ñaan saa borom mottali ko nam mottali woon yee ko jiitu liñ baaxoo wax nag mooy xasiday sëñ Tuubaa lépp luñ ciy jéem a leeral sun kem kàttan lañ ciy jéem waaye jéemuñu nag ne lii la jubloo wax moom loolu moom moo ko xam ñu bëgg a leeral ngir nit ñi gën a xam baati arabi rek nag incha allah kon xasiida gi fii la tàmbalee sëriñ bi dafa tàmbale ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa nim ko baaxoo defee ci ko jiitu woon mu ne allahuma yow buur bi salli yàlla na nga dolli xéewal ala sayidina muhammadin ci sunu sang ba di muhammad alfaatihi kay aji ubbi lima uxliqa ñeel la woon ñeel lañu tajoon wala xaatimi tey aji mottali lima sabaxa ñeen la jiitu woon naasiril xaqi kay aji dimbale dëgg bil xaqi te teg ko ci dëgg wala haadi tey aji jubale ja tey aji gindee ja ci coobare suñu boroom ila siraatika jëme ci sa yoon wi yow yàlla al mustaqim way aji jub xocc wa ala ak ci ay ñoñam xaqa qadrihi dëggi dëggi kartanam Euh, wala boog ñu ne dëgg-dëgg dara jaam ja wa miqdaarihi ak dayoom ba al azim bay aji màgg loolu la ñu tuddee salaatul fatihi mu boroom subhaanahu wa taala maa ngi lay ñaan yàlla na nga dolli xéewal ak mucc si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamee ne bari na xéewal yoo xam ne yaa ngi ko jaarale ci moom fekk la ko jiitu woon xéewal yooyee kenn mënu ci woon a jot yàgg nga fee indi ay nit ñu baax waaye moom mii moo mottali mboolem nit ñu baax ñoo ñëpp tëj bunt bi te loolu la ci gën a fës mooy yonante yi moom de bi mu ñëwee dafa dimbale dëgg lan mooy dëgg mooy diine islaam waaye nag jaare ko ci dëgg mu jaare ko ci tawxid di wéetal la borom bi subhaanahu wa taala ak alquran ji moom mii mooy gindi nit ñi di leen teg ci yoon wu jubbi yoon wi nga xam ne moo jëm ci yow te loolu mooy siraat alladina an'amta alayhim yoonu gaa ya nga xam ne yaa leen defal xéewal rek ñu gindiku mooy yoonu gaa yu baax yi min annabiina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihin maa ngi la koy maa ngi ñaan nga def ci moom salaatu salaamu waaye nga def ko ci ay ñooñam salaatu salaamu goo xam ne dana tolloog daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kon day rëy mu ne salaatan dolli xéewal goo xam ne tan suru danga wasaare bihaa ci ñoom salaatu salaamu gi alaya ci man barakaati xawlika barkeb wax ja nga waxoon ci alquran ne wa wasaynaa nun yàlla dénk nanu al insaana nit bi walidayhi ci yaari wajurum xusnan ci ak rafetal nashran wasaare goo xam ne taxfiru da danga jéggale bii ci moom li waalidayya ñeel saa ñaari waajur magfiratan njéggal goo xam ne tubaddilu da nga wottee da nga changé da nga modifié ci ñoom jamia sayiaatihima mboolem seeni ñaawteef ñoom ñaar nga wottee ko xasanaatin ay yiw wa tajcalu ta danga def yow yàlla bihaa ci salaatu salaamu gi haadihi alqasidata gile xasida wasilatan muy ab jottaliku kaay muy escalier lahuma ñeel saa yaari waajur ilal jannati jëm àjjana allati àjjana ji nga xam ne waxida digees na ko al almuttaquuna way ragal ña yàlla loolu lépp na nga ko defee nag bi jaahi sayidi saadaati ci darajay sangub sangeya alayhi yàlla na nekk ci moom yonante bi xayru salawaati ngën gi doole ngën gi dolli xéewal ndeysaan mu ne ko salaatu salaamu goog yi yàlla nag ma ci wesaareel barkeb la nga waxoon ci alquran ne dénk nanu doomu aadama mooy rafetal jëme ci ñaari waajuram wesaara goo xam ne dañ ci mën a jaare maanaam salaatu salaamu gi ak barke bi nga xam ne mooy bàyyikoo ci aayab alquran bi barke bi suñ borom nang ci gi defal ma ak njëggal ñeel saa yaari waajur nga jéggal leen mboolem luñ def ci lu ñaaw waaye boo leen jéggalee ba noppi dangay ngay wane sak mbaax te mooy lan mooy lañ defoon ci ay ñaawteef nga soppi ko da koy wëlbati def ko mu nekk ay tuyaaba loolu suñ borom moo ko wax ci alquran nee na képp ko def lu ñaaw wëlbati ko tuub rëccu dellu fa moom nee na fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanaatin waxuma dinaa leen jéggal de waaye damay xool bakkaar ba nam tolloon ci ñaawteef ma wëlbati ko mu nekk toyaaba subhaanallah dayob mbaax maanaam nit ki dafa defar nu bon njaala woon def nanga bañ a kii mënta baaxati waa ja xëy suba ne suñu borom maa ngi nii ñëw naa damaa bëgg a baax suñu borom danaa ko toppatuma la dara waaye nag damay xool bàkkaaree nu mu tolloon ci rëyaay ma wëlbati ko mu nekk toyaaba ma wëlbati ko mu nekk toyaaba loolu kenn xamut kan xeetu mbaax akum jéggal la waaye kooku nag mooy alkarim loolu mooy alkarim ku tedd ndeysaan koo xam ne jommante nag di fayoo ki di fayontoo ak i jaamam yaaman man jalla an xawadin suñ borom maa ngi lay ñaan it barkeb salaatu salaamu googu ak barkeb bi nekk ci aaya alxuraan bi aaya alxuraan ji maa ngi lay ñaan nga defal ma xasiida gi mu nekk aw yoon wu sa saa yaari waajur di jaar ba dugg àjjana te àjjana moom yaako digoon ñi ragal yàlla ñi nga xam dañoo ragal yàlla yaa leen dikk àjjana loolu yëpp yàlla na ko def ci barke bi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy sangub sang yëpp yàlla na yàlla def ci moom salaatu wa salaamu noonu la ko ubbee moom sëriñ bi radiyallahu anhu mu daal di tàmbali jëmmi xasida ne wajjahtu jëmale naa wàccee sama jëmm li man jëme ko ci buur ba nga xamee ne toyya lemal na ma yoonu yàlla yi maanaam lemal na ma daf ma taxañal yoon wi lii ñeel ma wahaba may na moom yàlla li waalidayya ñeel saa yaari waajur daa yan doom ju leen ni ñaanal ndeysaan wajjahtu jëmale naa wajhiya sama jëmm lahoo jëm ci yàlla bil hamdi ànd ak cant daa tawbatin may boromuk tuub min xota sama bàkkaar yi tey yi waa am di ak sama bàkkaar yi nga xam ne maa ko tey sëñ bi nee na tey maa ngi jóg jëm ci yàlla saa borom yàlla mi nga xamee ne yoon yi ñuy jaar yoon wa ñuy jaar jëm ca moom moo di jëfe ndigal bàyyi tere sellal rek ak i teggin nee na suñ borom bu fekkee nit ñu baax ña dañ ko daan dox ay at yu bari man suñ borom dof ma ko taxañal def naa jàngeen tawaytu tawi tariqal xawmi mooy firi wax ji waxtam tidaahihi su may tagg yonante bi salaa salaam la yu baaxee daan dox mu yàgg lool man suñ borom daf ma koy daf ma koy taxañal maanaa daalika eh, boo bëggoon a jógee Ndakaaru war a ñëw Tuubaa dugg oto oto ba lum gaaw gaaw dana fa defum ndiir dana fa dana dana dana fa def ab diir waaye nag ki nga xam ne dañu ko coppet ndakaar ne ko tegg ci jumaa mu daal di agsi nee na man noonu la ma yàlla defal suñ borom moom yi moo may saa yaari waajur doom joo xam ne moo fi des di leen ñaanal yonent bi nee na woon doomu aadama bu xasee ba génn àdduna jëfam day day dagg lu dul nag lum fi jiitaloon loola di meññi léegi garab gu mu defoon muy keral ay nit wala teen bu mu gasoon wala daaree alxuraan ju mu tabaxoon wala mu dugal ci dërë ab dërëmam daara jooje ñu fay jàng alxuraan waaye boole woon na ca nag ne wa waladun salihun yad'u la doom ju baax ju koy ñaanal suñ borom nag dimbale na sa saa yaari waajur ba may leen doom ju baax joo xam tey yii mi ngi nii ñëw di leen ñaanal yal na ko yàlla may maa ngi yàlla mi nga xamee ne euh, mooy sunu borom di sant. waaye di ko tuubal ci bàkkaar yi ma tey ak yi ma teyut salli yàlla na nga dolli xéewal ala xayra wara ci ngën ji mbindeef mooy kan muhammadin sayidna muhammad wa alihi ak ay ñoñam wa saxbi ak saxaabaam ya kan moo koy def yaa samadi yow yàlla mi nga xam ne yaay aji jublu suma yow laa jublu suñu borom defal ma salaatu wa salaamu ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam salli yàlla na nga dolli nga ci moom yonante bi bi salaamin ànd koog dollee musal wax firte yàlla na nga jéggal li waali daye ñeer saa yaari waajur wa kaffir te yàlla na nga far alxuquqa ak ya nga xamee ne man ameel naa leen ko wala boog ñoom ameel nañ ma ko wala ñu ameel ko keneen ku dul man sax suñu boroom yàlla nga def salaatu salaamu ci yonante bi waaye yàlla nga jéggal sama ñaari waajur te ak yañ ma ameel wala yañ ameel yeneen i jaam ñi nga musal leen ci nga faral leen ko yàlla man na ko mën na koo far mën na koo far yaa man woo naa la yow yàlla mi nga xamee ne xabaani yaa ma may bil munaa ca mébét ma ca xéewal ya faltaafu yàlla na nga jéggale xan abi wali saa baay wa ummi ak saa billa si ci daraje ka nga xam ne an na feeñ na attaq wala gaar na attaq diimu jiitu ko di ko ñeel suñu borom yow mi nga xam ne yaa ma defal la ma bëgg yaa ma defal ay xéewal maa ngi ñaan yàlla na nga jéggal te jëllale sama waajur wu góor ak wu jigéen ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy borom jiitu ga najjihimaa yàlla na nga leen musal minal asaabi ca mbugal ma wala xisaab ak regle ga bil Mustafa ca daraja yonant bi wa man ak képp koo xam ne dunti saabin boromuk askanoo la ilayhi jëm ci yonant bi suñu borom maa ngi ñaan mbugal ak xisaab musal ci saa ñaari waajur ci barkeb yonante bi ak képp ku bokk ci askanu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ok di ku ne xam na ne wax mucc nekkul lu yomb dugg àjjana nekkul lu yomb Sëñ Tuubaa day ku ne xam ne ak mbaaxam ay waajuram baax nañ de bu doon loolu kon ñu ne jërut ñu leen ñaanal voilà sëñ Tuubaa day wax dëgg yàlla ni mu baaxee rek ay waajuram nangam waaye déedéet dafa ñëw di ñaan di dagaan lu muy ñaan lépp lu ñu ragal muy ñaan suñu borom musal ci ñaari waajuram loolu xam na ne mbir yi nekkul lu yomb mu dolli ko ne ko ukutub yàlla na nga farataal ukutub yàlla na nga bind lëxoo ñeel yonent bi xayra salaatin ngën ji dolli teraanga wa bi gu ànd koog dollee wóolu bi aalihi ci ay ñoñam wa kuffata yàlla na nga fegala anhuma ñeel leen ñoom ñaar muy saa yaari waajur almalam yeddeel ga ante yow daal yàlla alxafóoru yaay aji jéggale ja liix firan yàlla nag ma jéggal wala huma te jéggal saa yaari waajur wali zawil islaami ak jéggal ñooñ islaam wal tarxam huma te nga yërëm saa yaari waajur te nga yërëm leen ñoom ñaar isaan ma ko suñu borom maa ngi ñaan nga defal yonante bi salaatu salaamu ta musal saa yaari waajur ci lépp luñ leen yedde ëllëg ak tey suñu borom yow miy jéggalekat bi jéggal ma jéggal saa yaari waajur jéggal mboolem waa lislaam tawajjahtu jublu naa làkka jëm ci yow aroomu di sàkku min ka ci yow faw sahuma seenuk texe ñoom ñaar waqad raditu ta mbir moom gërëm naa nag an ka ci yow uktub yàlla na nga bind yàlla na nga dogal ñaar yëpp dana ko firi li kullin ñel képp min huma ci ñoom ñaar sa saadatan ak texe daa imatan koy aji sax yaa man yow yàlla mi nga xam ne loxoo ñeel na ko al iadatu tey day ñëw naa ci yow di sàkku sama texe eh, texe sama ñaari waajur te fekk nag gërëm naa la lool ci li nga ma jot a defal suñu borom maa ngi ñaan yàlla na nga bindal saa yaari waajur kenn ku nekk ci ñoom texe goo xam ne day sax ba faaw yow mi nga xam ne nit ñëpp dañuy delluwaat jëm ca yow ñëpp ci yow lay mujj walillahi sama samawaati wal ard lépp rek yàlla koy mujjee najjihima yàlla na nga leen musal yaa qaabilal bi yow mi aji nangu tuub fil xabri ci bàmmeel wala qiyaami ak taxawaay ba. min itaabin ci yeddeel sallim huma yal nang leen musal waay maal ñoom ñaar ñëpp minal aw jaali ci ay mettit fi nashri ca dekki ga wal xashri ak pangama wa min ixjaal ak ci gàcca irham huma yal nang leen yërëm rabbi yow saa borom kama rabbaya niya nanga xamee ne noonu lañ ma yare te yërëm ma saxiiran fe boobu fekk maa nga nekk gone bi imaamil anbiya loolu maa ngi la koy ñaan ci daraja njiitul yonante yi da ko njëkk wax suñu boroom subhanahu wa taala yow mi nga xam ne yaay nangu ak tuub hmm. xaafiri san bi wa qaabili tawb dégg nga yaay jéggale bàkkaar di nangu tuub yàlla na nga musal sama ñaari waajur ci bàmmeel ak yafay xew buñ dekkee ëllëg yow mal xam ca taxawaay bi nga musal leen ci lépp lu leen yedde yàlla na leen musal saa boroom ci mettit ak ci gàcca ëllëg bu ñu dekkee taxaw bis pinc ba ñu pang nii ñëpp suñ borom sama yaari waajur yi bi ma nekkee gone dañ maa yërëmoon lool noonu ñi ma yërëmee woon tama nekkoon gone maa ngi ñaan yàlla na nga leen yërëmee noona ndeysaan ci daraja yonante bi sallallahu alayhi wasallam loolu aaya alquran la waxul rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira wala boog sagira suñ borom yàlla na leen yërëm niñ ma yërëme woon nabi yëka maa ngi lay ñaan maa ñaan loolu ci daraja imaamil anbiya ki jiite yonante yi mooy kan nabi yëka moo di sa yonantu ba alhaadi ka eji gin alhaadil wara ka eji gindi mbindeef yi muhammadin turwaadi muhammad salli yàlla na nga dolli teraanga alay ci moom bi salaamin gu ànd ak doolee musal samad yi yow aji jublu sama yow mi ma jublu bi jaaxi ca darajaam ji al asim ja aji rëy ta màgg moom yonant bi zidni yàlla na nga ma dolli yan ak lem yoon wa wax fiir ta nga jéggal bi ci daraja yonant bi lii ñeel ma wali da ak ñeel saa yaari waajur suñ boroom ci daraja yonant bi salaa salaam nga xam ne daraja ju rëy la fa yow Euh, gàttal gi may gàttalal yoon yoon may dox jëm ca yow di ko lemal yàlla na nga ko dolli te yàlla na ma jéggal jéggal saa yaari waajur euh, wax dëgg yàlla yàlla na ma jéggal jéggalaale saa yaari waajur wajjih yàlla na nga jëmale xayra maxfiratin ngën ji njéggal li waalidaya jëme ko ci sama ñaari waajur ya dëgg ñaanal na leen wa xayra isaadin ak ngën gi texe wa xayra tabshira ak ngën gi bégle akum mbég suñu boroom sama ñaari waajur maa ngi lay ñaan nga defal leen ngën gi njëgal ngën gi ak texe ak ngën gi ay mbékk lii lépp booy jàng xasida gi yaa ngay ñaanal sa ñaari waajur gis nga ko li muy ñaan mën naa arrangé kuy dund ak ku ak ku fi jóge ñëpp noonu la ko tëggee irham xuma yàlla na nga leen yërëm sama ñaari waajur yi fir xabri ca bàmmeel wal xiyaami ak taxawaay ba wa nashri ak dekki ga wal xasri ak pang ma wa zidd te yàlla na nga doole xiyaami sama taxaw guddi wala sama taxawaay ci diine lii xab yàlla nga may qiyaama kulli leen taxawal gépp guddi di jaamu yàlla ak julli bi soor ànd ak saari alxuraan ya war na jineen ta nga musal ma minal xufuuli ci càggante wala xawar akuk doxee di nga suñ borom yàlla na nga yërëm saa yaari waajur buñ duggee ci bàmmeel ak ëllëg buñ dekkee taxaw bis penc ba ak bu ñu euh, bu ñuy dekkal jaam ñi di leen pang di leen jiital ñu ci bisu taxawaay ba te yàlla na nga dolli sama position sama taxawaay ci diine wala sama taxaw gi may taxaw guddi moo tax mu feddali ko nekk yàlla na nga may guddi gu jot may taxaw di julli di jàng alxuraan te nga musal ma ci ak càggan musal ma ci ak doyadi daawtuka ñaan naa la de allahuma yow yàlla yaa mujibu yow mi aji nangu ay ñaan bi jaahi man ci daraje ka nga xamee ne tujibu da nga nangu ak ñaan bi jaahi ca darajaam suñ borom ñaan naa la te yow kat kuy nangu ñaan ga waaye maa ngi lay ñaane ci daraje ki nga xamee ne ci moom ngay jaare di nangu ay ñaan muy muhammadun sallallahu alayhi wasalaam sallam yàllaahu yow yàlla yaa rahmaanu yow aji yërëma ji yaa rahimu yow aji yërëm ku la neex ëllëg yowmal xiyaam man yow mi nga xamee ne summi ya eh, tuddee nañ la bi xaribin ci xarib wa mujib ak mujib mu ne ko suñ borom su nga ñaari tur yi mu jël suñ baa ku mën a ñaan la situation bu nekk day xool lafay fay yella buy ñaan suñ borom day xool tur wa méngoog li muy ñaan fii yërmande lay ñaan fii yërmande lañ soxla moo tax mu ñaane ko ci arrahman ak arrahim yow suñ borom yow mi xamee ne bokk na sa tur yi alqarib ak almujib alqarib mooy kii jege ba nga xamee ne képp ku am lu muy ñaan rek nee ko ñëw naa jege naa la ñaanal waaye mooy ki nga xam ne mooy nangu ñaan dégg nga nee na ci alquran wa isa wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribu nujibu daawata daai isa daani ne la yonent bi gars yi buñ la laajee eh, ne leen man de jege naa leen lool maa ngi pare pour nangu seeni ñaan nañ ñaan rek bu fekkee bu bu ñaane te ñaane nañu war a ñaan rek dina leen nangul mu yow mi nga xam ne kon yaay eh, sa tur yi bokk na ci qarib ak mujib ah maa ngi lay ñaan lan la koy ñaan mu ne ko xëpp yàlla na nga may li abi ñeel saa waajur wu góor saa baay wa xëpp ta nga may li ummi ñeel saa waajur wu jigéen sarmadan fawwu magfiratan ak njéggal wa rahmatan ak yërmane bi ahmada ci daraja yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mi tudd ahmad xutta yàlla na nga sippi alxuquqa aqiya waa zunuba ak bàkkaare ma wali saa yaari waajur yooyu bi jaahihi ci daraja yonante bi alacim ja aji màgg wal tukrimhuma ta nga tëral leen ndeysaan da ko woo ci arrahman arrahim alqarib almujib ne ko yàlla na nga may sama waajuru góor ak sama waajuru jigal ak njéggal ak yërmande ak yi ñu ameel nit ñi yow yàlla man nga leen koo jéggal fay nit ña yàlla na nga ko def te nga sippil leen seeni bàkkaar ci daraja yonante bi salaa salaam mi nga xam ne daraja ju rëy la te nga teral leen ndeysaan ñaan yu am solo la suq day fekk nag suqi la ñuy bind ndax wa in taraahu alifun wala ma faksir jàngoon nañ ko ca mulhatul i'rab ci wàllu naxu la kon suq yàlla na nga womat yàlla na nga jiital salaata asalaata lee teral lin bi jëmee ko ci yonante bi bisalaam gu ànd ko doollee wóolu fii aalihi ci ay ñoñam wa kunta nga nekk lahuma ñeel saa yaari waajuri salaam yow yàlla mi nga xam ne yaa tudd salaam bokk na sa tur asalaamul mu'min salaam jàng nañ ko ci alxuraan mu ko sama ñaari waajur yi daal maa ngi ñaan nga defal yonante bi salaatu ak salaamu waaye saa yaari waajurit bu leen fàtte ndaysaan yàlla na leen nekkal ci lépp lu leen di bégloo gis nga day tudd salaatu ak salaamu jaxase kook ñaanal ñaari waajuram yi ndax salaatu ak salaam ñaan la goo xam ne yàlla du ko delloo mukk moo tax boo ko dugalee say ñaan rek nday ndaysaan suñu borom mën na cee rus yonante bi alayhi salaatu wasalaam ci waxin mën na ko cee rus ba nangu sag ñaan moo booy ñaan dee ko ci jiital di ko tëjee naq yàlla na nga setal saxiifatay ximaa seen ñaari téere yee seen ñaari téere ñoom sama ñaari waajur yi min kulli ma ci lépp loo xam ne yi juru day ñoddi bayxan ak xat waam xuxoo ta nga far ko wasallima ta nga musal leen mu ne suñ borom seen ku nekk day jaam boo bind da ko bindal ay téere yoo xam ne maanaam ay téere jëf fa maama nuutee kitaabuhu jàng nañ ko ci alquran téere yooyu maa ngi ñaan lépp lu ca nekk loo xam ne daf leen di indil ay jafe-jafe na ko far effacé ko te saxal fa lépp lu baax te àtte ci sa yërmande rek te musal leen ndeysaan ajib yàlla na nga nangu ñaan gii a la ñaan bi jaahil Moustapha ci daraja yonante bi gis nga moom la tëjawaat moom la tàmbalee woon wasalli ya te yàlla na nga dolli xéewale alay alayhi ci moom yonante bi bi taslim ko ànd ak ko dollee wóolu waskur ta nga sant kulliya sama lépp bi muy tàmbali bi mu indee wenn bayit rek ñaara ba ñett dafa julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam avant muy dugg ci ñaan gi gis nga ñëwaat na bi muy tëjit dafa tëjee salaatu salaam dafa xam ni muy ñaane saa borom subhaanahu wa taala ñaan goo xam ne yonantu baa nekk ca bopp ba nekk ci mujj ga kookee da ñu ngi am yaakaar ne yàlla du ko delloo kon boo jàngee xasida gi lii ngay wax lii ngay ñaanal gis nga lim ci ñaan ci njéggal ak yërmane ak mucc ci mbëggoon bàmmeel mucc ci taxawaay ba ëllëg mucc ci bu ñuy dekki eh, loola kenn xamut ni mu toll suñ borom effacé sa téere yi jëf sa ñaari waajur musal leen ci lépp lu ñuy ragal dëgg lii kuy xëy jàng ko sa ñaari waajur ñaanal nga leen ñaan goo ne ñaan daal mënu ko weesooti mu tëje ko nag lii muy allahuma yow boor bi salli yàlla na nga dolli xéewal musal wa barik te dollee barkeel ala sayidina ci sunu sang mawlaana tey sunu kilifa muhammadin wa alihi ak ay ñoñam wa sahbi ak sahabaam ya nga defa leen salaatan dolli xéewal goo xam ne wa wasalaamun ak dolli mucc goo xam ne wa barakatan ak dolli barke boo xam ne taxfiru da nga jéggale bihima ci ñoom lii ñeel ma wali waalidee ak ñeel saa saa yaari waajur yàlla nga julli ci bi sala sallallahu alayhi wa sallam defal ko salaatu salaam goo xam da nga ma ciy jéggale jéggalaale ci sama ñaari waajur wali man sabaxanaa ak ñeel ñañu jiitu bil imaane ci ngëm maxfiratan ak njéggale asman gu aji dogu gu aji dog dégg nga ñañu jiitu woon ci ngëm mooy ñu jiitu njëkk ñoo yàlla yàlla na leen jéggal njéggal goo xam ne amul benn werante mu teg ci aaya alquran bi rabbi yow saa borom irhamuha yàlla na nga leen yërëm kama rabbayaani naka ñu ma yare te yërëm ma saxiran mbir mu may nekk gone gis nga ko loolu alquran la moo wax ne deel wax loolu yàlla moo ne yonent bi ak jullit ñi dee leen wax naan yàlla yërëmal suñu ñaari waajur nañ ñu yërëmoon bañ ñoo ne gone mu teg ci rabbi yàlla yow saa borom ixfir li yàlla ma jéggal wali waalidayya ak jéggalaale sama yaari waajur rabbi yow yow borom bi xëbli yàlla nag ma may min la dun ka lu tukkee fa yow durriyatan di ay sët tayibatan yu aji teey innaka naka yow samiu duaa yaa aji nangu ñaan ñu ko ko day tànn aaya ya nga xam ne ay ñaan ñaanal sa bopp ñaanalaale sa waajur ñaanal jullit ñi moom la ko tëjee mu ne suñ borom jéggal ma jéggal saa yaari waajur yàlla nag ma may ay sët yu teey sët yu teey mooy yan mooy sët yoo xam ne dañuy jëf-jëf ju baax yàlla de man nga ko ndax yow yaay nangu ñaan baadu samiu day firu nangu mu jëmee ci yàlla saa borom subhanahu wa taala dëgg la samiun dana ak dégg samian basira rabbi yow saa borom ixfir yàlla nag ma jéggal wali waalidayee jéggal saa yaari waajur wali man jéggal koo xam ne képp koo xam daxala dugg na bayti sama kër muminan mbir mu muy aji gëm walil ak ñeel jullit ñu góor ñi wala muminaat ak ñeel jullit ñi jigéen ñi wala tasit wala tasit bul dolli ak waalimina tooñkat yi mu yéefari illa tabaaran dara toroxtaange rek ak musiba loolu yonentu yàlla nuuxin boo jàngee suuratu nuux ah, da nga ca eh, fekk inna arsalna laa ila xawmihi suñ boroom jéggal ma jéggal saa yaari waajur jéggal képp koo xam ne dafa bokk ci sama xeet wii mooy ña ko nanguloon ba muy woote woote na lu yàgg yàgg yàgg yàgg alfa alfa sanatin illaa xamsiina aman junni at yu juróom fukk ña gëm daanaka bëri kon nag yàlla nag ma jéggal jéggal saa yaari waajur jéggal ñi nga xam ne ñoo ma jot a gëm bu dee yéefari nag alkane rek nga leen di dolli rabbanaa yoo saa borom ixfir lanaa yàlla nag ñu jéggal wala ixwaanina ak ñeel suñu mbokki jullit ñi allasiina ña nga xam ne sabaxoonaa jiitu nañu bil imaani ci gëm wala tajal yàlla boo def fii xulóobinaa ci sunu xol yi xillan ak noonoo mbañeel lillasiina ñeel gaa ya nga xam ne amunoo gëm nañ rabbanaa yow suñu borom innaka naka yow raufun aji ñeewant nga rahimun aji yërëme nga yaa aji yërëme ja mu ne suñu borom jéggal nu jéggal sunu mbokki jullit yi nga xam ne ñoo ñu njëkk a gëm te faatu ja suñu boroom ñi ngi lay ñaan sunu xol bii bul ci def mukk ñuy noonu benn jullit ñaan gu am solo la ñaan gu am solo la suñu boroom yàlla na ñu musal sunu xol bi ñu di ci ëmbal keñaan wala noono wala mbañeel ñeel bépp bépp jullit bu mën a doon seytaane nag mooy indi rek ay noono bokk leen lii yow lii nga yow lee nga ngeen nekk di noono rek xamu leen ne yéen benn ngeen ndeysaan yéen a bokk jenn ndey waaye rek kii di góor kii di jigéen rek kii di mag kii di ndaw loolu wàññiwul dara teewul ñu bokk yow suñu boroom de man nga loolu ndax kuy yaay aji ñeewante ji yaay aji yërëm ci mu teg ci ñaan gi nga xam ne yonent moo ko santaane rawatina ginnaaw jullit suba gu nekk mooy allahuma yow buur bi a'inni yàlla nang ma dimbali ala dikrika ci di la tudd di tudd saw tur jàng alxuraan ci la bokk wird ci la bokk lu mën a doon xeetu tudd yàlla yi man nga ne ala dikrika ci di la fàtte mhm. wa shukrika ak sag sant wa xusni ibadatika ak rafetuk sag jaamu suñ boroom yàlla nag ma dimbali ma bañ laa fàtte mukk ci jaamu la di sant di rafetal jaamu ga eh, saxaaba ba nee na yonante bi moo ne ko xanaa doo xaar ma dénk la mu denk ko baat yi ne ko dee ko def ginnaaw jullik farata gu nekk lu yomb la mu teg ci allahuma yow boor bi ahsin yàlla na nga rafetal aqibatana sunug muj fil umuri ci mbiri kulliha mboole seen wa ajir naa ta nga musal nu min xisi dunya ci gàcce yi adduna wa azabil axirati ak mbugulum alaxira rabbana yow suñu borom aatinaa yàlla nag ñu jox fi dunya ci adduna xasanatan aw yiw fi laaxirati ci alaxira xasanatan aw yiw waqinaa ta nga musal nu azaba naari mbugulum sawara suñu borom yàlla na nga rafetal sunu mujj rafetal suñu mbir yëpp nga rafet nga nga defal ak rafet yàlla ñu musal ci gàcce ak adduna ak mbugulum yow alaxira adduna ak alaxira fu mu ci mën a doon yàlla nag ñu fa may tuyaaba ak yiw rek te musaluñ ci mbugalum sawara yàlla na ci musal musal ci mboolem jullit mu tëje ko nag rabbana yow sunu boroom hablana yàlla nag ñu may min azwaajina ci sunuy soxna bu doon jigéen a koy jàng mën na ne min azwaajina ci suñuy jëkkër wa durriyati wa durriyaatina ak sunuy sët qurrata ayunin lu sedd sunu xol wajxal naa yàlla nag ñu def imaaman ñuy njiit lil muttaqiina ñeel way ragal ñi yàlla amin yàlla na nga nangu ñaan yaa rabbal alamin ndeysaan nee na ko suñ borom subhaanahu wa taala dafa naa ca mujjug sóoratu forxaan booy dugg sóoratu soara mu ne ko suñ borom subhaanahu wa taala yàlla nag ñu may ay sët yoo xam ne danañu seral sunuy xol yàlla nag ko may ci sunuy ci ci sunuy soxna wala sunuy jëkkër bu dee jigéen luy loolu borom xam ne ñu mooy njaboot goo xam ne dañuy jaamu yàlla sa xol di ca sedde nga am ay doom yàlla def doom yu jub di jaamu yàlla su ko defee la nga bëggoon ci ñoom nga am ko sa xol mën caa sedd muy lu jafe nag mooy njaboot gu jub lu jafe la yal nañu ko yàlla defal wajxal naa lil muttaqina imaaman yàlla nag ñu def ñu nekk ay royukaay ñeel ñi nga xam ne nar nañoo ñëw te ñooñu bu ñëwee nar a nar jub nar am ak ragal yàlla borom xam-xam indi nañ ci ay tawil yu bari eh, am na ñu ne ñu def ñu nekk ay royukaay ci ñi ragal yàlla ñi ragal yàlla tamit nekk suñuy royukaay nga ne ku nekk da ngay da sa morom yàlla na nga nangu ñaan. mbokk yi lii mooy xasiida ak wa wasayna linsaana ñu ci doon jéem a góorgóorlu. lépp lu ci jub ci mbaaxuk suñ boroom xam-xamam ak kàttanam bu mu ñu dénk la lépp lu ci dëng nag loolu ci ñun la tukkee waroom xam-xam jubbanti ko yàlla na yàlla na ko yàlla nangu Sëriñ Tuubaa nangu ko taalibe yi jariñu ci gën ngaa rafetu jariñ incha allah allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammad